bon tey nag jonge la ñuy et c'est tout juste après ça. c'est souvent les mêmes scènes les mêmes haines les mêmes. le premier point c'est que jonge dama bëgg ñu xam ne yëfu jigéen la du yëfu góor des fois da ngay dégg jigéen ñu naan góor day jonge mais lui, jonge ci góor ana góor ak jonge góor du jonge te lu ma ci gën a métti ay góor punkalum góor yi ñàkk fayda ngay dégg ñu naan dangay jonge góor du jonge góor day galant jonge ak li ko ëmb yëpp bagage yi nekk ci jonge feem yi Mali bii gën a jege sax xamuñu ñuy jonge donc jonge c'est un truc bien de chez nous quoi na ci bëri ñu jonge tàccu leen ma loolu waaye jigéen mun na romb rek nga nopp Jigen dina jonge ci waxin ci nu muy wax ak yow wax ak yow rek sa xol féex jigéen day jonge tamit ci jëfin maanaam dans comportement day feeñ naturellement lay nekk jonge nekkul ci lal bi kase nekkul yaa fi jékki kase da ngay nekk ak sa xarit sax ngeen di waxtaan mu sentir ne yow danga nga jonge par contre nag am na ay jigéen yoo xamante ne dañuy jonge par circonstance maanaam c'est pour téye seen jëkkër bañ seen jëkkër xool feneen moo tax ñuy jonge si bien mais jonge warul nekk loolu kase parce que sa jëkkër su demee xooli feneen jonge bi da lay te jigéen ñu bëri noonu la def seen jëkkër su takkee ñaareel pare nañ seen jonge bi oh, pour ñoom ak ñoom plus rien à prouver ma ñëw nag ci la major partie des jeunes fii maanaam jàpp entre dix huit ans vingt trois ans xale yu jigéen yi mineti koo ci toogal koo ci waxtaanal su la waxee waxu jonge da yaakaar ne kii dafa jël livre jonge bind ko jël feuille yu xooj ko ci biir ndox naan ko ba pare jël xalima bi damm sànni. da ngay yaakaar ni kii moo gën a jonge ci àdduna bi alors que jonge bi ci làmmiñ bi la yam du ñu def dara jonge wuñu waaye nag li may dénk les femmes mariées surtout les jeunes mariés foo ngeen xam ne jonge mën na dugal jigéen àjjana yàlla waxu ko yonent bi waxu ko nag maa ko wax mais waxin moom déggin la laaj